asiru malabari nasiru wazanna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 ñu ngi nek fi ci Côte d'Ivoire ngir indi len liggéey bu am solo bi nga xamné wa kurelu xidmatu ñu koy amal muy bisub khassida at mu jot ñu di fi amal waye di amal ci gox yu Renak ren tuba wa Touba Adjami war ka amal diko ko fi ci plateau. mbokk yi académie bi naan ma bis TV gumin TV ño len fi teewal ngir fasiyene yéene lépp loo xam ne na fi rek insha allah taala ñu fasiyene len ka kaa dégtal. dinañ dékk suñu micro jëwri ñi nga xamné ne fi ñu leeral li nga xamné moy jëmi liggéey bi. fi lañu fasiyene taxaw. dugal leen si biir liggéey bi lépp loo xam ne amee na rek incha allah dara dinañ si ومن كل سوء وهو جل مجير مسيريا كوني عبد خادم النبي وامر البرايا للاله يسير سوئي واياه jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi xam ne waa Touba Côte d'Ivoire amal di fédération Xidmatul Xadim waaye ñu ngi taxaw ak suñu jëwriñ sëriñ Moustapha Fall mi nga xam ne mooy njiitu daayira bi sëriñ Moustapha ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la ana nan nga gisee liggéey bu am solo bi nga xam ne ay at ngeen di ko waajal ba tey ñu ak si bis asalaamaaleykum wa rahmatullah wajal jamia sayaati asanaat wajal bi aqaadi mustahsanaat barkeb seexul xadim jërëjëf sëriñ Sis xanaa di am mbégte rek di gëna santaat suñu borom di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne jërëjëfe seexul xadim jaajëfe sëriñ tubaa barkeb sëriñ tubaa xanaa di am mbégte lool ci ni woote yomb na waaye wuy si moo jafe boo gisee tey jii mbooleem ku dib taalibe nga nekk fii wala nga nekk bitim réew sa xol mi ngi Côte d'Ivoire rawatina nag ñi nga xam ne bii ñoo nekk ci intérieur pays bi ñoom ñëpp kenn ku nekk euh, jël na ànd naag mbooloom ak waa kër maam jaara ànd ñëw ngir jëmmi sëñ Tuubaa mm-hmm. waaye ngir jëmmi bis tey jii nag noo ngi am mbégte lool di santaat yàlla bu baax a baax a baax di nuyu moo xam ne ñëpp ñoo nga xam ne ñoo ngi seetaan ci seen jumtukaay yi nga xam ne bii moom ngeen ànd ak moom jóge Sénégal ngir yaatal bis bi mm-hmm. noo ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ñaanal it ak yokkute barke borom Touba waaye daal li ma man daal mooy ne bis bi tàmbali nañ ko fas nañ yéene it ànd ko tàmbalee ko ci sëñ bi yem ci sëñ bi muy sunna rek lepp dal tej ko ci sunna kon nak ñongi euh, bayyi wat xel rek ñepp rek di len ñaan yan ko tew at yu bari barke barke borom tuba sun borom yagal Sëriñ Mountakha lol ak njabot Sëriñ tuba gep ak kilifa yi diine yi jere gene jëf. mu mel seigne sëñ Moussa bis bi waajal ngeen ko ay at ba egg si bisub tey bi waye mel na ngeen ci liggey bu am solo ana nan ngeen fassiyene doxale programme wa jere jërëjëf seigne Assis xam nga bis euh, liggey seigne Touba fi mu ne dafa yombut moy sa so àggalee bis ni tay ji bu subaa la tambalat di waajalaat bis bi ndax noonu la ñuy waajale bisab sëñ Touba saa suñu saa suñu xëyee rek dañuy tàmbaliwaat beneen liggéey bu bees loolu moo waral jéego yi niñ ci toll nii ñu am ko liñ ci bëgg a waajale mooy li ci jiitu mooy li nga xam ne bi mooy sëñ Touba nee na lépp lu am moo ko may mooy alxuraanul karim moom la ñuy jëkkee euh, ci biir saal bi nit ñaa ngi ci di jàng alxuraan waaye ñu koy waajal ci xasida gi nga xam ne bi moom lañ ko tuddee xasida gi nga xam ne ko tuddee fas yéene cee jàng ay lim yu baree baree bari ak mboolem xasida yëpp waaye nag mel ni kuréel yi tàmbali nañu fi mu ne nii ndax kuréel national jàng na léegi te fas nañoo yéene kuréel bu wàcc beneen tàmbali am nay yu bari yoo xam ne bi dañoo jóge Sénégal ngir jëmmi bis bi waaye am télévision yu bari yoo xam ne dañoo jóge Sénégal ngir jëmmi bis bi te mën nañ cee ràññee Mafatihul Bichri mën cee ràññee Guy Mbind TV ak académie naan Baaxil Xadim ak beneen télévision boo xam ne moo nekk fii ci réew mi dañ ànd ak ñoom liggéey suñu taa mooy Akwaba TV kon nag mel ak yokk am na ci waaye yokk googu it lépp dañ koy delloowaat sëñ bi rek xam ne nun duñ ci dara ndax bi muy jaar fii dey metti woon lool waaye mm-hmm. boo gis boo ñëwee tey jii day métit woowa métit woowa lu mu métti métti tey jii sa xol dina ko seddee xam ne tey jii bis bi bisab sëñ Tuubaa la noo ngi koy waajal nag fas yéene fas yéene teeru teeru gan ñëpp rek waaye nag fas yéene teeru njabootu Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne bi ñoo nekk ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo jógee Sénégal ngir ngir jëmmi bis bi te mën nañ cee ràññee mel ni Sëriñ Isaaxa moom si Basiru ak Sëriñ Mutalaam Sëriñ Abdoulaat ak Sëriñ Seexuna mi nga xam ne bi moo nekk fi waaye da ci ràññee jëwriñ ñi nga xam ne ñooy jëwriñu mag yi muy ma Magumba Caam ak Sëriñ Aliou Gàkku mi nga xam ne bi tey jii ko commune lañ koy defee ak Baay Ibrahima Fall ak Sëriñ Ibrahima Ndiaye ak Sëriñ Moustapha Caam mi nga xam ne moo nekk abooba ak euh, Baye Arouna mi nga xam ne moo nekk Basam waaye waaye mel na ni jëwriñ yëpp ñu ngi ñëw kon nag loolu ñu ci waajtaay fi ñu ni bu baax a baax a baax di sant bu baax a baax nag jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel si réew mi ak si bitim réew kon nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen si bisu xasida bi nga xam ne mooy am fii si Touba Côte d'Ivoire waa fédération Xidmatu Xadim di ko amal ren di dixième édition kon ni lañ ko fassiyene ande yene lépp lo xamne ne fere na fi rek incha allah des na leen ko dégtal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh سبيل غابه لبيك يا

ngeen mbokk yi kon niñ leen ko waxee woon rek ñooy taxaw waa kër Seydina El Hadj Malick ay bisu Seexul Xadim njaboot gépp benn lañ ginnaaw doo leen fi teewee sëriñ bi yéen kàddu ngeen yëkkati si jëmale ko si bis bu am solo bi waaw kay baax gannaaw bu ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sant yàlla julli Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam xanaa di am mbégte mu rëy léegi niñ ko waxee ci biit bi ñuy dugg ñu ne lii ndamul islaam la balaa muy nag eh, ndamul Sénégal نك ندم الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه ندم الإسلام لا دبر ندخ في كي بلاتو دي في دفلي من هنا سين بريمير موسى في أم ندخ نيجي بقى يا كتير دكبي موسى نيجي في جيس أي فين كتك تي رود بينا خمنا كل جار دي كجيس دا جمل الإسلام دي تاران الإسلام دا جل في نك مولم يجليت دومي سنغالي دا جل في رفتنا رفتنا نكني نيان يا للي يا نك يا لجمل كنام waaye dikk ko dëgërale suñu yaakaar mag ñi li ñu nekkoon démb ak bëkki démb loolu rek mooy dëgg ak jamono bi ñu toll ni li ñu wër ni mu bëree ñun am nañ dalil bu wér ne lii ñu jàpp nañ ci mooy bu baax mooy li ñu mag ñi jàngal ndax mooy dëgg ndax dara melul ni moom ndax mooy jëm kanam lu dul moom ci suuf rek la jëm incha allahu rabbi ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla lii yàlla bu mu nekk suñu muñu dajee waaye liñ ciy sàkku yàlla yàlla jox lu kayo suñu njort bi jaay si du jot Abidjan fii nag yàlla defal nañu tawfiix mooy njaboot yi benn lañ njaboot Seexul Xadiim ak njaboot maam Seydi Hadji malik Sy bu ñu xewlee doo ko xàmmee fii boo xoolee mu ci sécurité bi muy ci lu rek ñoo ciy bokk di nekk ñun ñi bu ñu xewle ñoom ñu ñoo fay njëkk ñoo fay mujj te ñoo ñu ciy mën loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla di ci dalal xel ñëpp waaye nag wax dëgg yàlla di ci sant rabbana tabaraka wa taala xam ne moo ñu ko wërsëgalee di ñaan yàlla ñëpp ñaanal ñu yàlla loolu jëm kanam ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm yéen tamit yitte bi ngeen def jëlee ko bu Sénégal ngir lii dëgg dëgg yàlla ñemeloo ñu la ñemeloo ñu ñun ñu nekk ci àll bi la jërë ngeen jëf yàlla na yàlla dafa ñu sutura may ñu fekk at ñu bëri salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant bu baax jërëjëf Diop.